ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ne ah si ay programme Lutte TV tey nag Malick ñu ngi fii arène national fii nag yaakaar naa ne ku koo xam rek xam ne milieu lamb la bëri bu lamb la waaye nag seet si fi koo xamante ne aussi yaakaar naa ne ndaanaan la xam-xamam wàcc lool si wàllu sport rawatina nag wàllu lamb ba fa gay yaakaar naa ne ba ñuy gis suñu lamb di ko jël muy def ay analyse yu pertinente yoo xamante ni te yaakaar naa day jëm si wàllu làmb yàgg na boobu sax yaakaar naa ñëwagul nekk entraîneur wala ñëwagul nekk adjoint entraîneur yàlla dogal ñëw nekk adjoint ba ñëw nekk nag entraîneur équipe dañ koy nuyu rek ziar ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan sur TV grand bëgg naa la euh, ñu ngi leen di bëggee yéen tamit bu baax di nuyu mbokku internautes yi mbokk ñu nekk ci réseau yi réseaux sociaux yi ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp euh, di leen jaajëfal ñaan yàlla dolli jàmm boo ñu mënoon wax as tuuti kan mooy Bafa Gueye ak nu ko dugal ci ci ci milieu làmb. waaw Bafa Gueye nag moom ndongo daara la rek vraiment jàng jàng mbiru tàggat yaram euh, nekk lycée Bassoul di fa jàngale EPS li ñuy wax éducation physique et sportive euh, bëgg làmb nag di ci def ay gëstu. Euh, yàlla dogal ma yor ay xale yu ndaw di leen jàngal mbiru làmb Bassoul. ci loolu yor région de Fatick di leen yóbbu drapeau chef de ay ati ati at bon tegle ko nag yàlla may ñu may ñu wërsëg ñu tegle ko di ko jël lu bëree bëri euh, surtout par équipe bi bi muy door Jurbel fa lañ ko commencé di jël euh, yàlla itim ubbil ñu xéwal ndax euh, dàqu ñu fee jàng ëpp ñu fi xam-xam mais wërsëg la bu yàlla mayee ñu dem itim bitim réew gën a jàng ci wàllu sport au niveau waaw loolu la daal koo koy Bafa Gueye milieu lamb bi nag ni nga ko dengan rek ne da nga dem basul virus bu duggee la foofu noonu wala dafa nekk loo yaga a bëgg loo yàgg a dund. non école de formation la ko jàngee ci laa jàngee mbiru tàggat yaram d'une manière générale def option lutte nak bi ma option lutte bon góorgóorlu ci góorgóorlu ci bu baax parce que dama ni dama ko bëgg cosaan la ada la ba pare di sport bo xamni niñ xalé bëgg nañ ko nit ñi ñi ngi koy sétane man dina ci def ay gëssu jang ci xol nuñ ci tàggate yaram xol nuñ ci jàngee nuñ ci yokkee yoke nuñ ci yokkee doole waaw loolu la rek Boucar. loolu nga ñëw nag yaakaar naa nasional ñëw nekk adjoint entraîneur équipe nationale muy Père Ambroise ñu ko nuyu de passage rek di ko rendre un vibrant thomas parce que vraiment moom aussi euh, def na si liggéey def na si jéego yu am am am am solo nga ñëw booru si ginnaawam di rot si xam-xamam ah, di jàngale ci moom parcours bi nga jot a def ak moom loo si gën a lu la marqué. waaw Ambroise nag moom bu bu ñuy wax ci moom xam naa du jeex parce que kilifa la dafa dafa def lu rëy rëy en tant que pratiquant ci wàllu tàggat yaram wàllu làmb def ci lu rëy rëy tourné ñëw yor xale yi. waaw mais Ambroise moom laa lay wax nii Ambroise euh, bu ñuy wax ci moom du jeex parce que en tant que pratiquant représenté na Sénégal dignement indi fi ay raaya yu bëree bëree bëri. bi ñu weesoo loolu mu ñëw yor xale yor équipe nationale yàgg na def ay jaloore yu rëy rëy kon dañ koy ñaanal gudd fan ak wér euh, li ñu jàng ci moom nag bari na bari na lool li ci jiitu mooy ponctualité Ambroise bu la nee heure bi entraînement heure bi six heures du matin la six heures la non weesu na loolu waaw ba pare yaatu ci xam-xamam yaatu ci échange franchement lu mu xam yéene na ko ñëpp ñu échange waaw loolu moom vraiment jàng naa ko ci moom macha allah. mu nekk aussi koo xamante ne li daan ngeen liggéey mu bala fi dem bàyyi na lenge bi fardeau bi nag dañuy ñaan yàlla rek mu oyofal ko mu oyof tooy tooy tooy tooy ba peut-être euh, attentes yi nga xamante ne moom la ñu ñi di séntu ci yow nga ah nga nga nga nga atteindre lu sax lu raw seen satisfaction yaa naa aussi loolu la ñuy xaarandi ci yow pour yow tey lan la gars yi di gën a xaarandi ci yow. waaw continuité rek. continuité parce que euh, tàggat yaram moom ñu bari doonu foog ni. barki démb laa ñëw ci équipe nationale wala ci Ambroise ñu bari loolu lañ jàpp mais yàgg naa fi direction technique nationale <clears throat> lut yàgg naa ci mais dama nekkoon ci beneen wàll mais depuis ñam ñoom Abdou Badji nekk fi maa ngi fi woon di liggéey ak ñoom waaw léegi nag dafa am benn moment boo xam ni xalifa euh, saw moo ñëw nekk directeur technique national ni ma gën a rapproché Ambroise ngeen di liggéeyandoo ci loolu bureau bi aussi joxe accord may liggéey ak waaw mooy li ma la wax rek continuité la xam nga Sénégal bari na ay mbër. ñu bari jaar nañ fi. jël jël ay CEDEAO jël ay francophonie ñu bari. ah ñu fi delloo njëkkal ñu mel ni ñoom Sélé ñoom alfa Omar Diouane booy fay et cetera et cetera booy lim dangay fàtte. mais ñu bari jaar nañ Sénégal moo bari mbër yu baax. mais mais très bien mais li naan kii choisi élimine loolu moo fi nekk mais. dañuy ñaan yàlla daal euh, ci li ñu dugg nii yàlla jàppale ñu ci parce que yàlla nag mooy dimbali jaam li ñu war a def dinañ ko def ba mu mat sëkk CNG bi dooleel ñu ministère des sports dooleel ñu li ñu war a def ñu def ko incha allah. li ngeen war a def ngeen def ko jafe-jafe yi aussi si lañ bëggoon ñëw ba xam maanaam jafe-jafe yi lan lay nekk parce que keroog ñu ngi dégg ay écho ñu ne génn ngeen fii am ay problème bi ngeen génnee ñu naan ba fa sax après jéwul jall fenen fi ñu waron jall problème passeport ay lenteur administrative est ce que les moyens sont réunis pour des fois tay conditions yi ngeen wara liggéey normal ngeen liggéey ko euh, à temps non man nak man nak man nak personnellement mhm. musuma laaj mhm. lu ma bureau CNG joxul parce que aussi nit day wax lu mu xam rek ak lo xam ni euh, bo teudé nelaw man heure bu né directeur technique national li la soxla du fanane kon vraiment ci loolu la wara a yam a euh, affaire tukki bi nak dafa am ay pays yo xamni ñom ñoy ñom ñoy indi sen condition pour tukki waaw la Japon ñoni sa passeport bu déssé un mois sec mënoo fa dugg il faut mu des ay 6 mois et quelque <coughs> loolu vraiment <coughs> du problème mu CNG ci lima ma foog mais dal man lima soxla <coughs> pour mettre dans de bonnes conditions mes athlètes heure bu ma ko Euh, sama patron direct mhm. muy Khalifa Sow mhm. vraiment mu xar ci tànk tubéy ma jot ko. waaw ngeen war a dem nag francophonie yi am nag équipe bu bees waaye yaakaar na équipe bi ngeen am mën nañ ne élite la parce que mbër yi fi nekk moom vraiment ce sont des lutteurs de qualité yoo xamante ni tey kenn dootu leen présenté def nañ seen i tey ba peut-être euh, leen ba ba seen attention te ba ngeen di leen dajale leen fi ngir yóbbu leen est-ce que tey sa xel si ñoom. yow gisal nga sa bopp Boucar kenn mënatu a wax dara dara dara ci làmb te kenn du tudd ay reporteru làmb ci Sénégal te bokkoo ci macha allah gisal nga sa bopp <laughs> xale yi tey xam naa ne boo gisoon koo xam ni am nga ci ay doute di nga ne ma ah coach kii de moom li yëg non di nga ma message mais booy 66 kilos bi par exemple moom moo jël drapeau chef moom moo ko jël non Babacar Babacar Diène moom moo représenté woon région de Louga mais mi ngi dëkk Dionewar mooy champion du Sénégal en 66 kilos moo finaaloon moog Jam Senghor moom ngay gis. très bien moo tax ñoom ñaar lañ fi boole 76 kilos bi Ngor Ñaax mooy euh, champion du Sénégal toujours en 76 kilos Sini Bargny champion du Sénégal en 86 kilos mais ñooñu est-ce que am nga sañ-sañu war a woote woowoo leen. su boobaa monde làmb ŋàbb la ñooñ ñoo fi nekk ordinateur ku ne xam na ko euh, Goro Niang momit ku le xam na ko très bien donc ñooñ leen fi dajalé euh amna num doon demee sax ñu wo ñeneen parce que amna na ñeneen ñoo xam ni nañ ni dinañ ñew mais dafa amoon ay touti jafé jafé ay des trucs administratifs yo xamni motax moo tax ñu ni ñu xaar mais amoon nañ yene wo ñeneen ño xamni bu boba entraînement bi day gëna intense gëna a nga gis li nga wara gis bu baax waaw mais ñi fi nekk daal euh, Boucar mm-hmm. euh, doy na doy nanu am nañ ci yaakaar te yàlla na bu yàlla tas yaakaar. des fois aussi est-ce que euh, dañuy gis des fois comme li nga wax sànq regroupement catégorie bu nekk ñu ànd si ñaar pour au cas où kenn blessé wala kenn am empêchement yu demee noonu mais est-ce que dem bi aussi loolu du duy laaj loolu aussi pour bu ngeen demee match digg bi bu amee ku ku blessé wala ku génn yu demee noonu ñu mën ko remplacer loolu noonu possibilité wala loolu bu nga xasee ba lol nak foog naa ku melni directeur administratif bi euh moo moñu ci wara mëna <clears throat> expliquer mais dal boo woté regroupement euh, le plus souvent li gën moy catégorie bu né nga am ci ñaar wala ñett moy lolou moy li gën moy l'idéal mais aussi xam nga woté bi ay ñaar ak ñett des fois ça dépend ci moyens yi ngay am ah, su moyen moyen bu fi amé nek fi euh, man gëm naa ni CNG mënu bañal lolou mais des fois aussi bu fekkee durée bi nga wara dem pour tukki dafa xaw gàtt des fois nga indi fi ay ñett ak ñeent des fois day indi ay détails yoo xam ne doo ko mën contrôler mais le plus souvent li ci gën nii mooy comme comme ni voyage bi c'est pour bientôt boo mënee am catégorie bu ne ñaar baax dans le cas contraire bu fekkee mënul nekk catégorie bu ne nga jël ci benn boo xam ne yow na la ni am nga ci yaakaar mais da ngay liggéey ak ñoom d'autant plus que waa lutte olympique ñi ngi fi ñoom dañuy dem

parce que les jeux de la francophonie lañu jëm te réew mi la ñuy représenté te ku nekk am nga ci wàll euh, yalla yalla doli dolli yalla may ñu ndam ndam li ñuy wuti inshallah war fi jógee le 25 yalla naka yalla motali inshallah recevoir bi nak mom la gaay di ñaan depuis loolu nañ leen recevoir nañ leen recevoir ab Bafa ban appel lay lancé ci loolu. wa mais lu jot rek yomb en tout cas ñun li ñu wara def pour suñu réew. ñu ngi koy def ta foog naa ni mooy l' essentiel nit ki li nga war a def. def ko très bien leneen lu jot nag yomb te xëy na kii war a recevoir xëy na moo ci jotagul mais bu ci jotee dina yomb bu kar kon ñu ngi lay naan bonne chance rek merci Boucar di leen jaajëf yàlla yàlla gën a yokk a amiin yaa rabbal aalamiin non yow yàlla moo ñu boole jërë ngeen jëf